parce que lii am ni tey mësula am ci Sénégal ndax lii ngeen gis ci internet bi ci la loolu dong la assamble nationale am dossier boobu muy PV enquête boobu ak leetar yooyu ngeen gis loolu dong la am ci la assemblée sukkandiku tey pour yëkkati immunité parlementaire bu lii loolu nag ñun li ñu def mooy ñaawlu ko ndax dañoo amul lenn lu dëgër loo xam ne am nañu ko lu ñu war a mën a yëkkatee immunité parlementaire bu Sonko li am tey ñaawlu nañu ko te danañu continuer suñu combat nun opposition bi ndax lii nii moom daf war a jeex ndax depuis Macky Sall ñëw feek tey ñëpp xam nañu ne dafa jël assemblée nationale di ko caxat caxatee jëlug nitam teg fi jëlu paam boo xamee teg ko fi lu mu bëgg rek mu defal ko fi avec son majorité mécanique la boo xamante ne bu leen Macky Sall waxoon dagg leen seen yi sax ñu dagg seen baat yi dama ne tey gàccal la nun ñëpp tey dañu am gàcca tey parce que nun tey député gi nekk ay député tey nun dañu am gàcca ci assemblée nationale non mais Ousmane Sonko du ñëw fii nun ñi nga xam ne nun ñoo war a wax waree wax sax dañuy yuuxoo duñu nangu ko wax amuñu démocratie lu may majorité mécanique boo xamante ne vraiment c'est honte quoi mas maa ngi de maa ngi de